parlementaire liberté euh, démocratie ci évolution dossier Ousmane Sonko bii nga xamante ni euh, defe naa jàpp nañ bés di aljuma moom moo war a doon euh, plénière bi alors honorable député dikkal ñun ci tolluwaay mbir mi ak li nu tënk tey ak plénière googu ñu jëm naka la mbir yi nar a tëddee ak lan moo ci nar a topp. tënk. mooy danañu amal plénière. le maanaam a à 11h. danañu amal plénière. Mm-hmm. kooku moo jëkkati loxo wax li mm-hmm. waral ah, kon daal ñëpp teew nañ cay ngeen wéyal ngeen wéyal bi mm-hmm. voilà donc honorable euh, député euh, Keraw yaa ngi doon féddali sa taxawaay par rapport ak dossier bi yéen euh, am ngeen seen ñaari naataango yoo xam ne génnoon nañ commission ad hoc bi waaye teewul wéyale nañ liggéey bi waaye yéen ngeen xamal askan wi leen donte dinañ ko wéyale waaye ñun maanaam tey ñu ci tey ñu ci ëllëg ndax ba tey mbir mee ngi dox di woy yéen ban position ngeen ciy continuer taxawee ndax di ngeen teewee plénière ba ndax maanaam nag ngeen ci nar maanaam maanaam procédé daal. population bi bu leen fàtte ne kenn mënu fa teewal kenn ndax commission bi man groupe liberté et démocratie ñoo ma tàmm tànn man ak Moustapha Guirassy mhm. yàlla dogal Moustapha Guirassy am na sañ-sañu bàyyi man en tant président Fatou président Mamadou Diop président Moustapha président Mamadou Lamine Diallo ak président Abdoulaye Wade mi nga xamante ne moom moo ma tànn gisal ma ci groupe parlementaire ñu ne ko suñu yéene mooy de continuer di ci continuer défendre ndax lu li ñu ko def mooy défendre waaye buñ ko teewal ndax foofu noonu kenn du ko teewal kenn moom moo am sañ-sañu tànn nit moom président Sonko Mhm. parlementaire defante googu noonu nag naka la nar a demee yaa ngi naan da ngeen ko nar a defante ak ñoom ci naka lan lañ fi defante mooy bu honorable ant honorable en tant que homme ngay jàngat xew-xew yi am ci réew mi gis nañ ni fan yi ay arrestation yi bëri na lool surtout ci ñenn ñi nga xamante ni ñoom danoo jàpp ne lii dil la ab complot la maanaam danoo bëgg nangu seeni i liberté ak seen ak ak seen yelleef yow ana ban jàngat nga ciy am. jàpp naa ne rek mooy taxawaayu président Macky Sall. Mhm. ndax ba mu tàmbalee di léegi toog mu fi nekkee mooy jàpp opposition yi ci sa bi rek loolu moo waral ñun lépp loo xam ne jëm ci opposition bi dañuy jàpp ne rek toujours rek politique moo nekk ca ginnaaw pour néewal doole ab opposant moo waral suñu combat ñun waa parti démocratique du Sénégal ak groupe bi ma jiite mooy combattre état bi jàkkaarloo ñoom ñu fexe ba nga xamante ne doole

Mm-hmm. ndax ñëpp xam nañ ne panafricaine la kon moo tax ñun duñu mën a wax ci loo xamante ne suñu dëkkandoo yi luñ leen di jàppale wala luñ leen di ndax loolu dañu gëm ne dañu gëm ne ñun dañoo war a jàppale eh, réew yi réew yëpp dañu war a ànd bokk ay benn bàyyi bu ñu mënee sax def benn état boo ne ab ñooy bokk nekk benn état xam-xam ndax euh, Bara Dolly jiite groupe parlementaire liberté démocratie moo nekkoon au téléphone ak ñun ci échange goo xam ne euh, mi ngi ko doon def ak ñun ci wàllu levée immunité parlementaire Ousmane Sonko njiital Pastef ñu fàttali leen ni vendredi bii ñu jëm ca lañ fas yéene amal euh, plénière bi ndax boobaa député yi war a ndax waaw wala déet dinañ yëkkati mbalaanu kiiraay Ousmane Sonko nga xamante ni soxna Adji Sarr mi ngi koy tuumaal ab viol waaye tamit ak menace de mort Adji saar ci boppam moom ñu fàttali leen ne suba dina jàkkaarloo ak euh, juge huitième cabinet waaye du ci wéet daf koy ànd ak ay caméramanam donc bu weesoo loolu loolee tënk xibaar yoo xamante ni euh, mën na leen ko fi defal Abdoulaye ak maire naaj bi tàng na waaye bëgg leen xibaar ak bëgg leen jox li